لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى أمانته ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أتباعه وبعد mbokk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi sant yàlla li nga xam ni mooy gépp xeetu cant ñu ngi jullee ko salman ci yonente muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dimbale ko yàlla di ko bàkk di ko gërëm ci xewalam yi màgg yi nga xam ni dañu di ko rek suñu kaw guddee bëccëg xewalam yi ñu xam ak yi ñu xamul xewalam yi jiitu yaag yi mujj yëpp yi feeñ yaag yi nëpp yëpp bokk na ci xewalam yooyu Euh, boole gi ñu boole tey jile ñii euh, bokk ci dawra bi le nga xam ni euh, lépp ak jàng la ak tàggatu la wante ko ak mbokk la mbokkoo la wala xamante la ak tamit wéral mbokkoo gi nga xam ni moom la yàlla boole tey ci jotaay bi ñu war a tàmbaleeg yéen mawdu bu njëkk ci dawra bi mawdu bi comme ni ngeen ko gisee charge bi euh, mooy ahamiyatu marxalati shababi fi daawati ila allah ahamiyatu marxalati shababi fi daawati ila allahi taala mooy importance su période jeunesse ci woote jëm ci yàlla subhanahu wa taala période jeunesse période boobu ni mu doonee période bu am solo ci woote jëme ci yàlla subhanahu wa loolu la ñu a gaaral muy importance boobu ci ay tomb ci anam bu gën a gàtt ndax waxtu wi jàtt nañu loolu tax dinañ ko gàttal gàttal ci artu bi ñu bëgg a def insha allahu ak yéen kon importance su période euh, lu mag la ci wàllu daawa lu rëy la wante dana feeñ ci ay mbir yu bari ak tamit ci ay anam yu bari bokk na ci bi ci jiitu ci importance yooyu euh, mooy euh, wa tatajalla hadihi al ahamiya fi umuri kasiratin minha ma yali maanaam importance bi dana feeñee ci mbir yu bari bokk na ci mbir E, yi di ñëw bi ci njëkk mooy hiya marxalatul quwati wal futuwati wal nashaat maanaam import ma période jeunesse ci dëgg-dëgg mooy période kàttan mooy période doole te aussi e, mooy période ak waxambaane mooy période dëgër wante mooy période yëngatu ak cawarte te tamit mooy période kër kër yi bi période la bu fees dell ak ay énergie yoo xam ni moom la yàlla def ci doomu aadama bi énergie yi mu fi dajale ak doole yi mu fi dajale ci période bi dajalewu ko ci benn période loolu borom bi subhaanahu wa fësal na ko ci quraanul karim ci wax li mu wax ni euh, aaya bi rek kan mu ñu koy jàngal ci yéen bismillah الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا من بعد قوة ضعفا وشيبة وشيبة وشيبة جميل أها آخر تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة فاضل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد على البعض ضعفا قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا جميل ممكن تتم الآية يخلق ما يشاء ها تفضل jamil euh, alhamdulilah borom bi subhaanahu wa taala mi ngi wane période bi ni mu nekkee période euh, doole ak période kàttan ak période cawarte ak période waxambaane wante nekk tamit période ay énergie yu màgg yu yàlla dajale loo tax borom bi wax ni allahu alladi xalaqakum min daafin summa jaala min baadi daafin quwa summa jaala min baadi quwatin daafan wa shayba borom bi subhaanahu wa taala fadal tayib yàlla mu ni allahu alladi xalaqakum min daafin summa jaala min baadi daafin quwa summa jaala min baadi quwatin daafan wa shayba borom bi wax ni allahu seen borom bi nga xam ni mooy jaam te kooku mooy yàlla mi yooyu jaam moo ni lan mooy wane ni moo yooyu jaam mu ni xalaqakum ndax moo leen bind moom yàlla subhaanahu wa taala afa man yaxluqu kaman laa yaxluqu ndax kiy sàkk ak kiy créer danañ yem ak ku mënut a sàkk ku mënut a créer loolu bokk na ci màndarga yi gën a mag yi wane ni moom rek moo moo yeyoo jaam yaa ayyuhan naas ubudu rabbakum ah, alladi xalaqakum walladiina min qablikum laalakum tattaqun kon li waral ñu war ko jaamu mooy moo ñu sàkk loo tax mu ni allahu alladi xalaqakum yàlla mi yooyee jaamu mooy ki nga xam ni moo leen bind waaye te bind googu fan la tàmbalee mu ni xalaqakum min daafin moo leen bind ci néew doole ak néew kàttan noonu tamit ak nasax foofu la seen bindu tàmbalee muy période bu njëkk ci seen dund thumma jaala min baadi daafin gannaaw ga mu def gannaaw faiblesse boobu ak gannaaw néew kàttan boobu ak gannaaw néew doole boobu mu def quwwa mu defal leen quwwa kàttan ngeen am kàttan jóge ci période néew kàttan dem ci deuxième période bi mooy période am doole ak am kàttan ak am ay énergie yu mag yu yàlla dajale ci deuxième période boobu summa jaala min baadi quwatin daafan wa shayba ga mu def ganaaw période kàttan boobee mu def leen benn période muy troisième période mooy période daaf période néew kàttan di contraire xuwa ba yokkaat ci leneen mooy chey ba ak màgget kon nga gis ni foofu ñaata période la yàlla séddale ci ñaata période la yàlla séddale dundu doomu aadama ci ñaata période ah ci ñett période période bu njëkk bi mooy marxalatu daaf al ula ñaareelu période bi mooy mari marxalatu al quwa ñetteelu période bi ma marxalatu al daafi shayba kon ñeent maraxil yooyu et yooyu la yàlla séddale dundu doomu aadama te euh, période bu jëkk bi mooy bi nit ki juddoo nekk liir mënagul dara kàttan amagul kàttan lépp dañ ko koy defal mu joo ñëw nekk liir indaalewul dara ci àdduna ñàkk lépp noonu tamit euh, amul dara gannaaw ga mu jóge ci période boobu dem ci période kàttan yàlla defal ko ay kàttan mu am kàttanu yu bari yàlla def ci période boobu dinañ ci ñëw ci kàttan yooye kàttan googu dem may nit ki mu mënal boppam lu bari amal boppam lu bari Euh, mën a nit ñi lu bari gannaaw ga mu jige ci période boobu nga xam yàlla dénkoon na ko ay kàttan yàlla rocc ci yooyu mu jigee ci période boobu dem ci période ñàkk kàttan yooyu ak faiblesse bu ko defee yàlla rocc waat kàttan yooyu wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil xalq afala yaqilun képp koo xam ni guddal nañu fanam yàlla nee na dana rocc kàttanu bindam xanaa nit ñi duñ jëfandikoo seen xel ndax loolu ñu ngi ciy teg suñu bët nga gis ni ak màgget commencé kàttan ya commencé rocceeku ca cër ya kàttanu gis ya gis-gis ba muy kàttanu gën ya kàttanu dégg ba tàmbali di wàññeeku kàttanu muscle yi ak doole yaram bi tàmbali di wàññeeku kàttanu loxo yoxo yi kàttanu tànk yi noonu tamit dem na ba kàttanu lekk ga wàññeeku ak màgget commencé di mu dikk ba yàlla indi nadir luy wane ni nit ki waajalal ndax yaa ngi waaja génn àdduna dem ca àllaxira muy nadir ba wa jaakumu nadir ak màgget commencé muy shayba nasax commencé bi jaaw bi commencé bopp bi commencé di weex kooku la doomu aadama di di mujjee kon nga gis ni ñaari période faiblesse ñoo ëmb période kàttan ba période kàttan boobu mooy période jeunesse kon période waxambaane mooy période doole te moo nekk ci digg ba ñaari periode faiblesse daal di koy séq kon loolu lan day wane day wane importance su période bii day wane ni période bii dëgg-dëgg mooy période dund doomu aadama mooy période dëgg-dëgg yëngatu mooy période euh, kattan mooy période doole comme ni ko aaya bi waxee ci euh, ni ko borom bi subhanahu wa taala ci aaya bi doole yooyu nekk nekk ci euh, période bi nga xam ne yàlla da ko itlaq thumma jaala min baadi daafin quwa quwa googu yàlla da ko itlaq ay quwa la yu bari ay kattan la yu bari kan moo ci mën a jox ay misaal ci doole yooyu yàlla dajale ci période jeunesse ah quwa yi quwa yi anwaul quwa quwatu daw <laughs> kàttanu daw naam jamil quwatu xel quwatul aql doole yi xel loo bëgg a mokkal loo bëgg a comprendre danga ko mën a comprendre jamil quwatul amal doolee liggéey jamil quwatu sixa doolee wéru jamil quwatu alwaqt maanaam am nga temps bu waa bu yaatu alfaraat quwatu albasar am nga doolee gis mu yegg mu ngi dellu ci doolee jëmm ji ak yaram ah quwatu cawarte quwatu cawarte وهي قوة النشاط يعني النشاط والفتوة جميل قوة السمع الكلام yooyu yëpp mi ngi delluwaat ci jism bi et eh, naam jeune bi mun naa toog fii di wax une heure de temps trois heures de temps bal quatre heures temps mais bu magee masalan suñu waajur bi daanaka loolu day gis ci moom loolu wante ñun mën nañ ko jëli kon pouvoir yooyu bari ci ah الجنس اللطيف قوائد ها الورائية مشاركة ولا ديجنو أها تفضل مقاومة النفس ها مقاومة النفس قوة النفسية جميل قوة يويو bokk na ci yii nga xam ni mooy yi ñu bind bokk na ci kàttan yooyu mooy anwaaru quwa ashababiya bokk na ci yooyu mooy quwatul badan wal jasad bu la nee nga wax quwatul jisim mu ëmbaale lépp mooy kàttanu yaram ak kàttanu physique kàttanu physique nga xam yow yaram bi danga am wér bu daje ci yow am muscle yu tal am kàttan am doole mun a yanu mun a ni bërit mun a daw comme ni ko ñenn ñi waxee mën a gis nu mu la neexee mën a dégg nu mu la neexee nga xam ni euh, jàppoon nga ni sax lu lu ne rek yow mun attan nga ko sa yaram nga koy def lu la neexee bu la neexee di tëb ci as escalier di wàcc bu la neexee di bërëngu kàttan googu muy kàttanu physique boobu yàlla nga ko dajale ci période bi beneen période am li ci période bi am beneen période amu ko bi njëkk ba muy période gone ak période maanaam période euh, daaf ba mooy liir ga ba korog nit ki di mënal boppam période boobu nit ki amagul kàttan bii yax yi fendaguñu noonu tamit amagul muscle yi dëgëragul ba demee ba màgget tamit weesu période jeunesse dem na ba yax yi léegi commencé na tamit di fënax ndax liggéey na lu bari noonu tamit euh, muscles yi commencé nañu di ras dëgëratuñu am maa période bi période doole physique fii la ko yàlla def subhanahu wa taala ci période bi bokk na ci doole yooyu yi fi yàlla def kon doole boobu nit ki da ko war a exploiter ci daawa pourquoi mu ko ci daawa liggéeyal ci daawa loo tax nga gis saxaaba yi ñu bari ci période bi lañu ñu liggéeyal daawa loo xam ni daanaka amul kenn ku ko liggéeyal daaw boo xoolee ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dinañ nekk dinañ ci ñëw ñu mu nekkaloon ñëpp ay jeunes lañu euh, ñaareelu quwa bi mooy quwatul qalbi wa shajaati wal xamaasa mooy dooley xol doole yu njàmbaar dooley fit nga xam ni yow dooley ardeur ak xadar nga xam ni yow jàpp nga amoo lenn looy ragal amoo lenn looy calculer bu dee mag nag am na lu muy calculer parce que am na ay jaar-jaar am na ay expérience dana calculer lii ba mu xewee lii moo ci tegu bu ko defee mu calculer ndax lii du mel ni nële li am tey da koy méngaleeg li weesu woon parce que am na ay expérience yu bari mais yow amagoo expérience loo tax doo calculer dara doo xof dara doo ragal dara lu ñëw rek da ngay koy sàññaaku loolu dafa nekk ci euh, jeune jeune bi loo tax àdd ak xadar lay demee bu dee mag nag xel bi lay demee ak expérience am mais gone kàttan xol bi lay demee ak xadar loola tax faw doole bi ñu yeew ko yeew ko imaam ak yeew ko ak xel muy xelu mag ñi loolu moo ko mën a yeew ak expérience mag ñi bu ko defee nag mu mën a nekk luy jariñ nit ki mu exploité ko ci luy jariñ bu dul loolu rek xaru lay doon dana ko yóbbu ci mu xaru beneen quwa mooy quwatul lu benn bi ñu waxoon sant mooy doole xel loo bëgg a mokkal mun nga ko mokkal boo demee ba bi jaaw pour mokkal dafay jafeti même ñun suñu période bi sax xam na ay jeunes lañu mais soxla yeeg nangam yeeg bari na ba nga xam ni dara ka dara mënatuñu koo yeew noonu tamit période bi ngeen nekk nag ci ngeen mën a yeew lu bari ci seen xel ci ngeen mën a mokkal lu bari seen xel te xel bi noo ko tàggatee rek mu jox la loolu mi ngi mel ni rek ñi nga xam ni dañuy bëri wala dañuy sport wala dañuy def yenn sport yi da gis seen kàttan dafay dañuy am kàttan mais ñoom judduwaale wu ñu ak kàttan yooyu dañoo tàggat seen yaram ba mu jox leen kàttan yooyu seen yaram taaweeku mais noonu yaram bi di taaweekoo ba ba mel na la neex nu ko raw la xel mën a tàggatoo ba yaatu ba mën a jël lu baree bari bari bari loo tax xel moo gën a nangoo tàggatu ko yaram loo tax boo ko tàggatee ci mokkal rek mu tàggatu boo ko tàggalee ci tàggat tàggatee ci comprendre mu tàggatu ci loole boo ko tàggatee ci njàng mu tàggatu ci lool mais boo ko tàggatu ci nelaw ak gëmm ak ñàkk yitte mu tàggatu ci lool rek maanaam mu jub jub ko boobee jub ko boo ko jox rek moom lay jël loo tax boo nekkee xel boo nekkee xale na ngay sonal sa xel bul wax ni amul lu mu mun a comprendre jàppal ni amoo loo munta kam comprendre mun nga comprendre lépp awma lu munta xam gëmal ni amul lenn loo xam ne mënuma koo xam lépp laa mën a xam lépp laa mën a jàng amul lenn loo munta jàng ba man ko bu ko defee da ngay am yitte gu rëy googu tàggat sa xel ci loolu bu ko defee nag xel bi wuy si la ci loolee faaw nag yitte bu rëy bi am mooy ulul himma beneen kàttan bi mooy quwatul aatifa wa shahwa mooy kàttanu sentiment kàttanu sentiment jeune bi yan bi dafa ak sentiment dafa am lu koy attiré ci jigéen moom jeune bu góor bi bu jigéen bi tamit dafa am lu koy attiré ci góor nga xam ne doole boobu dafa fees ci yaram loo tax il faut ñu cadré ko bu dul loolu rek mu gaañ ñaar ñooñu loo tax yonent bi jàng jël adressé hadis bi ci shabab bi yaa ma'shara shabab lan la wax man man istata'a minkumul ba'ata آه فليتزوج آه فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع كم سير جاري آه فعليه بالصوم فإنه لو وجاء ده يرغي صوم الله المستعان kon yaa maachara shabab waxul yaa maachara shuyuux ndax soxlawuñu ko shabab yi ñoom ñoo ñoo seen yaram dafa tàng loo tax il faut ñu cadré seen yaram boobu ak tàngoor boobu bu dul lool rek di tahdib ko bu dul lool rek mu gaañ leen man istata minkumul baata ko mën a at ko attan charge kër ak charge jabar fa la tazawaj na takk ah ndax mooy mën a tax nga mën a téye sa bët ci xale yi jigéen yi ak ci lu xaram ak ci awra yi lu lool rek sa bët da nga koy boyal ci télévision yi di xool ci internet di xool ci photo yi di xool ci ñi lay romb di xool mooy tax nga mën a wàcce sa xef téye sa bët te bët bi boo ko mënul téye rek doo mën a téye sa xol bi doo ko mën a sàmm xol bi du mën a laab xol bi bu laabul ba ay bànneex yu bari fees ci li ngay xool photo yooyu bët yi da koy jël cliché yi mu daal di koy sànni ci xol bi muy bu yooyu ngay xool ci jigéen yi day faj sa xol ba xol bi fees dell bànneex daal di koy sotti ci yaram bi yaram fees dell ak bànneex nga mujj ba am feebaru jigéen ci xel guddeeg bëccëg jigéen rek a ciy nekk dootoo mën a téye sa bopp dootoo amati sa bopp loo tax bët bi ci lay jaaree bu ko defee nag loolu bu yeggee ba fees dell sa yaram dootoo mën a téye sa bopp loo tax mu ni bët bi boo ko boo ko sàmmee ci ngay mën a sàmm farji bi ci ngay mën a sàmm sa sa sa sa pays sa bopp kon wa man lam yastati ku ko mënul nag fa alayhi bi sawmi nay takkoo koor ndax mooy mooy mooy wàññi dangar bi kon loolu aussi lu a bàyyi xel la xoolal jeune bi ya rasulallah idan lii bi zina kii xadis la boo imam ahmad moo ko solo xadis la bu wér benn jeune dafa ñëw fekk yonente bi sallallahu alayhi wasallam toog ak saxaaba yi mu ni ko yow ki yàlla yónni xoolal li mu ko wax idan lii fi zina ya rasulallah idan lii bi zina xam nga loolu garaw la mu yow ki yàlla yónni dama lay ñaan nga jox ma autorisation ma njaaloo ci pourquoi parce que yaram bi fees na dell ak banneex yooyu yonent bi sallallahu alayhi bi mënoon a jàngale yare woo ko ni ko jege si mu gën a jege si mu ni ko jege si waat gën a jege si mu wax moom ndax waa ji jeune bi xam na ni njaaloo dafa xaraam mais loolu tax mu ñëw ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir ci moom autorisation xaj na sax bu ko bu ko joxee autorisation ci yaakaaram du ci am bàkkaar mais xam na ni xaraam na loo tax yeneen bi waxul ak moom ni aaya nangam nee na xadis nangam nee na léegi mu wax moom ci wàllu xel ak wàllu fitra yonent bi sallallahu alayhi wasallam def li ñuy wax communication ak dialogue ak jeune bi loolu tax loolu faaw mu am pour yar jeune yi il faut ngay dialogue ak ñoom il faut nga jegelee loolu tax yonent ni ko jege sil jege sil ba mu gën a jege sil mu ni ko jege sil mu ne ko atardaahu li ummi ndax bëgg nga ku ko def sa yaay mu tere mu ne ko nit ñi tamit bëgguñu ku ko def seen yaay atardaahu li li li binti ndax bëgg nga ku def sa doom bu jigéen mu ne ko yàlla tere mu ne nit ñi tamit bëgguñu ku ko def seen doom bu jigéen atardaahu li uxti ndax bëgg nga ku ko def sa sœur mu ne ko yàlla tere mu ne ko nit ñi tamit bëgguñu ku ko def seen sœur ndax bëgg nga ku ko def sa amma sa bàjjan mu ne ko yàlla tere mu ne ko nit ñi tey bëgguñu koo def seen bàjjan ndax bu nga koo def sa tante mu ne yàlla tere mu ne nit ñi tey bëgguñu koo def seen tante te koo ko def ci société bi imma mu doon doomu kenn wala sëram wala mu doon tàntam wala bàjjanam walla yaayam kon conscientiser na ko ba mu xam ni lii ñaaw na parce que bëggul ko ko def kon tamit waru koo def keneen gannaaw ko yonent diko ko jege si mu jege si mu jël loxoom bu tedd ba teg ci dënnam daal di koy ñaan ni allahuma tahir qalba laabalal xol bi ndax feebar bi mu ngi ci woon feebaru bànneex feebaru jigéen tahir qalbahu yaani min maradi nisa aw min maradi shahwa min maradi shahwa tahir qalba laabalal xol bi yàlla laabal xol bi mu ne ko tamit wa xassin farja na ko may mu mën a boppam na ko may mu mën a téye boppam na nga ko sangeel man ko mën a téye boppam ba awraam du ko dugal fu xaraam bu xol bi laabee rek awra bi mun koo téye waghfir lahu damba na nga ko jéggal bàkkaaram jeune ba mujj loolu dañ ci xelam ba set wicc allahu akbar kon doole yi loolu tax période bi nekk période bu dangereuse boo xam ni buñ ko orienté wu rek mu gàng jeunes yi euh, ñaareelu mbir bi waree importance période bi mooy période la boo xam ni mooy hiya marxalatu sixati wal faraagi wal kasbi wal amali wal ibaada mooy période wér mooy période jot comme ni ngeen ko doon waxee sànq wante mooy période euh, kër kër yi ak fàggu maanaam wut mooy période liggéey wàcce mooy période ibada jaamu yàlla loolu tax période bi nekk période bu am solo période bu rëy li koy wane mooy xadis yi di ñëw xadis bu njëkk bi yonent dani Buxaari moo ko solo nicmataani mabunun fihima kathiru min annaas ñaari xéwal a ngi nii ñu bari ci nit ñi dañ leen cee nax ku xam ñan ñaari xéwal la ñu bari ci nit ñi dañ leen cee nax maanaam xéwal yi dana ñëw ba jàll duñ ci liggéey dara dañ koy perte borom beeri ñuul yi as-sihhatu wal farah mu nga as-sihhatu wal farah wér ak am jot ku nekk yéen a ngi wér yëgoo leen benn coon benn feebar par rapport ak ñun ak mag ñi yéen ngi nii amoo leen benn soxla bu leen tënk daanaka yu bari comme mag ñi tënk soxla yi leen tënk kon am ngeen siha am ngeen farah kon loo leen bëgg a liggéey rek mën ngeen cee liggéey amul benn buum bu leen tënk tënk ñi ci bari ci yéen xanaa nga xam ni moom jot nañoo am soxna ñooñu moom faqad euh, euh, rakibu lbahra kama qala ahaduhum man tazawaja faqad rakiba albahra wa man wulida lahu faqad gariq képp koo xam ni moom am na soxna kooku moom mi ngi war na gaaw ma nga ca biir géej gi ma nga ca danger yi am maanaam boo demee ba am doom na xalaas maanaam lam nga lam nga ci biir soxla yi jamil ñaareel xadis bi irtanim xamsan qabla xamsin aha irtanim xamsan qabla xamsin maa hi aha anta borom big bi irtanim xamsan qabla xamsin aha xayaataka qabla mawtik dangaa mujjee fa dangaa njëkkee fa mujjee amu solo tartib bi amu solo maanaam tàmbalee profitool ci juróom balaa juróom a ñëw profitool ci du sa dund balaa deeway dikk ñaareel ba ah sixataka qabla saqami aw saqami maanaam da nga ci sa jamonoy wir laata wéri di di dikk ñetteel ba shababaka qabla haramik ci jamonoy jeunesse jamonoy waxamaane nañ ci profité balaa màggete dikk ñeenteel la xinaaka qabla faqri ci te am ak koom-koom na nga ci profité balaa ñàkk a ñëw juróomeel la ah yaa sëyi la juróomeel ah wala sàpp yi juróomeel ba aha waaw hada tiib wax nañ ko jamil faragaka qabla qabla shughlik faragaka qabla shughlik faragaka qabla shughlik jamil tayib euh, na nga profité ci sa jamonoy fiix laata soxla yi di ñëw laata ñàkk jot di ji nga amee jot profité ci laata ñàkk jot di ñëw beneen xadis bi wane loolu mooy xadisu sabaatu yudilluhum allahu fi dilli dama ko répété fii sabaatu yudilluhum allahu fi dilli yowma la dilla illa bokk na ci ci ñoom maxalu shahid mooy lan shaabun nashaa fi ibadatillah mooy jeune boo xam ne dafa màggaaleeg jaamu yàlla kooku bokk na ci juróom-ñaar yi nga xam ne bu yowmal qiyaame yàlla da leen di keral ndax bu yowmal qiyaame dañuy jegeel jant bi ba mu jegee bopp jaam yi ñaq yi di sotteeku naaj bi di leen sonal ak raj-raj loo bi buuxante bi am nañu yàlla di keral nag ci keram ga ñooñu bokk na ci juróom-ñaar ñooñu shaabun nashaa fi ibadatillah wala bi ibadatillah fii dañoo répété hadithi ni juu. Jamil. Aha. ah ah juróom-ñaar ñi ñu wax ko jaaw na ko mahallu shahid bi ala kulli bi ci njëkk mooy imaam njiit bu jub imaamun aadil ñaareel ba moom mooy ñaar rajulun qalbu muallaqun bil masail waa yoo xam ne xolam dafa aju ci jàkka ji ñetteel ba mooy ñaar ñu bëggante daje ci loolu te yàlla tax ñu daje ci loolu xaaj tàqale ko ci loolu ñeenteel ba mooy shaabun fi nasha fi ibadatillah mooy ñaareel ba sax mooy xale boo xam ni dafa màggale jaamu yàlla juróomeel mooy waa ji wéet moom xalaat ci yàlla ba xolam liw mu daal di ay rongoñam juróom-benneel ba mooy waajoo xam ni jigéen bu taaru mat jigéen da ko woo ci boppam mu ne ko damaa ragal yàlla juróom-benneel juróom-benn juróom ñaareel ba mooy waajoo xam ni dafay nëbb lu baax li muy def ba kenn du ko xam ku dul yàlla ba buy saraxee ci loxo nday jorom loxo càmmoñ ba du ko gis euh, jëndil beneen mbir buy wane lii mooy kenn ki salaf dafa waxoon ni kenn ci salaf dafa waxoon ni yaa ma'shara shabaab yi baadiru bi sihhati qabla maradi fama baqiya ahadun ahsuduhu illa rajulan yutimu rukuahu wa sujudahu wa qad xiila bayni wa bayna dalik da waxal ni yéen jeunes yi na ngeen gaawantu ci seen période wér ngeen jaamu ca yàlla balaa wér di di dikk ndax amul kenn koo xam ni dinaa ko gis di ko ñee ahsuduhu maanaam ma koy ñee fii mooy al al bituhu ma koy ñee lu dul waajoo xam ni damay gis mu mun a rukkoo rukkoo bu mat ak sujjóot sujjóot bu mat kooku rek laa ñëwee fu nekk nii ci àdduna ndax wa a xiila bayni wa bayna dalik ndax ñàkk wér dox na sama digganteeg loolu ba a rukkoo rukkoo bu wet mat mënatumaa sujjóot sujjóot bu mat kon bi ngeen ci tollee def leen ko balaa muy wees bi ngeen ci tollee def leen ko balaa muy wees euh, kooku mooy ñaareelu mbir bi wane ahamiya buy wane ahamiyat marxalatu shabab euh, ñetteelu mbir bi nga xam ni moo koy wane euh, mooy marxalatu shabab hiya al marxalatu al ala nisbatan fi maraxili umri l insan maanaam dundu doomu aadama booy xool taux bi période jeunesse moo ci ëppale at mooy ñaari marxala yooyu ma la waxoon ñetti marxala yooyu maraaxil yooyu ñett ya mooy marxalatu quwa daaf al ula ak marxalatu al quwa ak marxalatu quwa wa shayba nga xam ni mun nañ koo séddale ci euh, ñeenti maraxil yi xoolal tableau bi moo lay leeralal loolu marxalatu tuhula al wilaada min al wilaada ila arbata achara min al umr ba c'est quinze maanaam quatorze ans ba 14 ans nga xam ni maaxal tufula la moo xam tufula al mubakkira al mutawassita comme ni ngeen koy waxee tufula al mutaaxira al murahaqa yëpp foofu la ñuy dugg maraaxil al murahaqa marxalatul murahaqa nga xam ni ba 14 ans foofu tufula yi marxalatu tufula kooku booy xool ci at yi 14 ans la boo koy xool ci nisba ni mi am mooy pourcentage yi 22 pour cent la am ci dundu doomu aadama boobu nit ki xamagul li ko tax a dikk boo xoolee marxalatu shabab commencé quinze ans parce que 15 ans daanaka ci ëpp 15 ans nga ngi commencé nekk jeune nga dee nekk mu kàllaf nekk majeur li ci ëpp. Euh, dem ba 40 ans am na ñu ko weesale quarante ans am na ñu ko yóbbu ba 50 ans marxalatu shabab bal am na ñu ko yóbbu ba ans. ba ibnu qayim naan maata nabi sallallahu alayhi wa sallam shaban te mi ngi dee kon marxalatu shabab 15 ans ba 40 am nañu ko yóbbu ba 50 ans ba 45 ans wala 50 ans marxalatu shabab boo xool ci shababu xaraka 45 ans la yem ci lañ ko shabab ci lay yem muy jeune quarante cinquante ans ci la ñu yemale marxalatu shabab jëlin boo xoolee moom li mu moom li mu am ci pourcentage bi nga xam ni quinze ans ba quarante ans ñaata at la ya salaam ah jamil quinze ba euh, quarante ans yaa ngi am foofu vingt cinq ans vingt cinq ans nga moo ëpp quatorze ans yi foofu pourcentage yaa ngi am quarante pour cent ci say dund maanaam période bi nga xam ne période jeunesse dina ko jël ci dundu aadama doomu doomu aadama mooy 40 pour cent kon 60 pour cent yi ñu ngi ko séddale ci diggante xale ak diggante kuhula ak sheyxuuxa marxalatu kuhula mooy wolof bi wax ndorom ndorom al kahn nga xam ni foofu diggante marxala la diggante shabab ak diggante sheyxuuxa wante borom xam-xam dañ koy boole ci kuhula ci marxalatu shabab la bokk wante marxala mutaaxira la min maraxali shabab bu ko defee dix ans yi quatre quarante euh, unième bi ba cinquante ans yi marxalatu kuhula la kooku kax la lay doon marxala boobu aussi mu ngi am quinze pour cent dañ koy dugal ci biir marxalatu shabab parce que maraaxil yi ñetti marxala rek la marxalatu tuhula marxalatu shabab marxalatu sheyxuuxa mooy ñetti maraaxil yooyu Qur'an wax allahu alladi xalaqakum min daafin thumma jaala min baadi daafin quwa thumma jaala min baadi quwatin daafan wa shayban ñetti marxala yooyu la fentu yeneen yi awsaaf la ci maraaxil yi ak ay sifaat loolu tax nga gis 40 plus 15 moo la jox 50 cinquante cinq pour cent kon ngay jëlay jël nisba bi awiya 55 pour cent nga jël 10 yi yokk ci 40 yi moo la jox ah 50 kon ba 50 ans nit ki jeune la donc 15 ans ba 50 ans kon muy ñaata at 15 ans ba 50 ans muy ñaata at 35 ans marhala shabab yëpp 35 ans kan ci dundu doomu aadama léegi Cheikh Oufa ba commencé cinquante unième année cinquante unième année la léeg-léeg soixantième année ba ci jeexu yenn borom xam-xam yi parce que ba soixante ba ba ba cinquante cinq ak lu ci jëm foofu boobu nit ki jeune la mais li ci ëpp mooy euh, cinquante unième année ba ba ilal wafaat boobu nit dugg na ci marxalatu Cheikh Oufa loolu li mu am ci dundu doomu aadama moom mooy. Euh, moom mooy 23 ans bu la neexee nga yokk ci 23 euh, ans euh, ci mooy des ci dundu doomu aadama parce que li ko waral 23 ans yi mooy wafaat bi mun na nekk 60. Thank you. jawaab eh, pourquoi vingt trois ans yi parce que eh, cinquante ans yi wala cinquante et un bi dañ ko yóbbu ba wafaat bi ko def ko soixante soixante wafaat bi dañ ko def soixante cinq ans parce que wafaat bi ñu ko fii mais soixante cinq ans la pourquoi def soixante cinq ans ku ko xam pourquoi def environ la nit ñi di faatu ñi ci ëpp ci nit ñi ay xadis fi hadi marhala ni yonent bi nee na xadis ba nu mu tëddee jamil ma bayna sittina ila sab'in wa qalla man jaalusaha aw wa man yujaawizu dalika qalil mooy xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ni amaaru ummati bayna sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuuzu dalik mu ni espérance biiwu xeetam maanaam li ëpp li xeetam bi dund diggante soixante la ba soixante-dix ans diggante soixante bayna sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuuzu dalik ñu néew lool ñoom ñooy weesu soixante dix soixante ñoo ñuy dem ba soixante dix jëm kaw ñu tuuti mais ñu ci ëpp diggante boobu soixante soixante dix ans boobu la ñuy gaañ ci xeetam kon loolu tax fële ñu def ko diggante soixante ba soixante dix diggante bi mooy li bi ci au juste milieu mooy la soixante cinq ans kon wafaa bi ñu waxoon sànq. waxaat bi sànq mooy 65 donc 5 50 union 50 union année bi ba 65 ans bi loolu foofu la nit ki di faatu lu ci ëpp kon da ngay gis période jeunesse moo ëpp loolu tax loolu wane importance période bi ci wàllu daaw ñeenteelu mbir bi ñu gaaw a tuuti ndax mooy période bi li wane ni période la am solo. mooy marxalatun tuxassu laha xisaabun aw yuxassu laha xisaabun yowma alqiyaama li ahamiyatiha yuxassu badala min tuxassu yuxassu laha période la boo xam ni dañ koy jagleel isaabu boppam bu yowma alqiyaama yi comme ni ko yonente bi salaa sallam waxee nii laa tazulu qadama abdi yowma alqiyaama xata yusala an umrihi fima abnaa wa an shababihi fima ablaa wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa an ilmihi maada amila fii rawahu al-Bazzar al-Tabarani isnaadu saxiix yonent bi ni jaam bi du jéggi siraat fii laajuñu ko yii di ñëw laajuñu koy dundam ci lan la ko jeexalee af naa ñu laaj ko ci période jeunesse am fii ma ablaahu ci lan la ko rappeler pourquoi ablaahu ablaahu innal jadidayni ida mastawlaya ala jadidin abnayahu li bila pourquoi ablayahu rap rap xam nga day am ci lu bees ak tamit rap ci lu bees ak tamit loo xam ne dafa am kàttan dem ba maanaam ba rap maanaam dem ba nga xam ni dafay dafay dafay dafay rap parce dafay bees Euh, am ay kàttan ak ay énergie yu yàlla def ci moom léegi nag énergie yooyu ñu ngi koy dépensé ak kàttan yooyu day dem jeex bu ko defee nag mooy dem ba ràppal yaram bi yaram bi dem ba mooy xuwaa yooyu ñu waxoon sànq mu ne xuwatu al aqli xuwatu jas badani xuwatu al qalbi xuwatu euh, al fan la ko ak fan la ko dugal ñaari laaj lañ ciy laaj ci xam-xamam dañ ko laaj lan la ci def lan la ci jëfee euh, juróom-benn mbir buy wane importance su période bi mooy alshabab hum asalu daawa aldaawat alislamia wa quwatuha wa muharrikuha wa mustaqbaluha wa watanu istimrariha wa baqaiha ba'da allahi taala jeunes yi ci boppam ñoom ñooy sidit xam ngeen sidit sidit ni mu ci yaram xam nga nit ki boo daggee ay siditam dafay dee jeunes yi ñoom ñooy siditu daawal islamiyya loolu tax buñ taxawul rek daawa bi du taxaw ñoom ñooy doole daawa islamiyya ñoom tamit ñooy muharrik ñooy moteur yi comme oto ni muy amee moteur boo xam ne moo koy dawloo noonu la shabaab bi nekkee moteuru daawa bi shabaab buñ taxawul rek daawa bi du du dem beneen ba ñoom ñooy avenir u bi ñooy mustaqbalu daawa bi beneen ba tamit ñooy watanu istimraari ak daawa watat xam ngeen watat watat mooy daaj gis nga tànt yi yi naar naari di defar am na genre pic yi ñu koy nga xam dañ koy daaj ba pic bi dugg ci suuf suuf ñu jël buum bi takk fii jël buum bi takk fii jël buum bi takk fii jël buum takk fii ngir mu téye tànt bi comme ni na jëlee montagne def ko daajug suuf walla jibaala aw taala ñooy daajug suuf si ba suuf si du ŋàññeeku wante suuf si tamit du yëngal mun a stable noonu la yi ci boppee nekkee daaju daawa al islaam yi daaju continuité na parce que jeunes yi fu ñu nekkul rek loolu amul continuité amul ëllëg ñooy daaju tamit desub daawa bi ñoom jeunes yi loolu tax Euh, ñu am euh, importance lool ci daawal islam yi juróom-benneelu mbir buy wane importance su période bi ci wàllu daawa mooy période la boo xam ne marxalatun sariatu lintidaa wal murur wa fursatun la taud wala taawad période la boo xam ne dafa gaaw a jeex sariatu lintidaa dafa gaaw a jeex wante tamit wal muru dafa gaaw a jàll wante occasion la boo xam ne pour sa occasion la boo xam ne laa taxut du dellu si waat benn yoon lay ñëw ci la doomu aadama du ñëwaat mukk xasee wees wees na loolu tax laa ko awal kenn mënu ko dab dabal bu jeex kenn mënu ko rattraper bu xasee jeex kenn mënu koo wecceeg leneen bu na loolu tax imam ahmad masalaha al imam ahmad bi wadiatin alkum mi ngi ko misaale moom imam ahmad ci dénku loxo mbubb xam nga sa lo lii mooy sa loxo mbubb dénk maanaam dénkaane loxo mbubb wala denc loxo mbubb nga denc ko fii ci loxo loxo mbubb jël benn boo jëloon xaalis denc ko fii est-ce que denc boobu wóor na xam nga wóorul beneen bi mooy pour nga bañ mu wadd nooy def dangay ngay yëkkati loxo bi chaque fois boo wàccee loxo bi rek xaalis bi wan du noonu noonu tamit kon da ngay am vigilance jamono ji nekk yaa ngi am intibaax yaa ngi koy sàmm période boobu boo ko sàmm rek dafay dem dafay gaaw a dem te buy dem doo ko yëg mooy mel ni xaalis bi ngay denc fii buy wadd doo ko yëg noonu la période jeunesse mel ci imam ahmad noonu la ko misaale kenn ci taabiin yi muy Maymun ibn Mihraan dalal wax dafa amoon taalibe yi ñoo xam ni ci taalibe ñii ay suyux lañ ñii ay shabaab lañ mu jàkkaarloo suyux yi ni leen yaa maachara suyux yi maa yuntawaru bi zari isa yarda qaalu alxasra mu ni eh yéen màgget yi yéen mag ñi waaw mbay bu demee ba ñor lu ñuy xaar ci moom ah góob ñu ni ko alxasra xanaa góob rek maanaam kon dem ba màgget kon dee dee mooy ñëw góob leen ñoom mag ñi kon bu demee bu yegg foofu rek moo tey tegu comme ni ko shaahid waxee inna jadidayni ida masarraya ala jadidin adnaya walil bila ibnu duret mu daal di iltafata ma tafata ila shabab gannaaw ba mu gestu ci jël yi nag ñoom ni leen ya ma'shara shabab inna zara qad tudrikuhu al afatu qabla an yustahsad mu ne yéen yi da ngeen xam ni léeg-léeg mbay laata muy dem ba ñor ba bu ñoree laata ñuy dem ba koy góob léeg-léeg yi yàq mbay jiitu ci nit ñi mooy soccet yeeg criquet yeeg yeneen yeneen ba yeneen xasaraat yeneen insectes yi ñëw lekk loolu lekk mbay ma loolu am la mooy dee laata jeune bi di nekk màgget dee ñëw daal di koy yóbbu dee ñëw daal di koy dog te boo xoolee ñi ëpp ci ñi ëpp ci ñiy dee ñi ëpp ci ñii dee mooy mag ñi wala jeunes yi jeunes yi ñoo ëpp ci ñi ñiy dee ñi ci ëpp mooy jeunes yi jeunes yi ëpp ñi ñiy dee jeunes yi ci ëpp parce que pourquoi jeunes yi ci ëpp parce que mag ñi gën a néew kon jeunes yi bala ñuy dem bay màgg bay nekk mag bay màggee dee ñëw jël leen loo tax ñiy des ñu néew lañu ñu rëcc ñuy rëcc ñu ñooy dem ba nekk ay màgget ñooy rëcc loo tax màgget yi gën a ci kër yëpp ak kart yëpp xool leen ko ci ku nekk na nga xool ci quartier wala xool ko sa kër yow benn benn màgget moo cay nekk wala ñaari màgget ñëpp ay jeunes lañuy doon xool ko ci quartier bi kër bu nekk benn màgget cay nekk wala ñaar yeneen ñi fa nekk ñëpp ay jeunes lañu kon jeunes yi ëpp loo tax ñi ëpp ci ñiy dee mooy jeunes loo tax saa yi war nañ lii période boobu kenn mënu koo dab dabal bu xasee jàll jàll na occasion la boo xam ne bu xasee jàll jàll na rëcc na kenn mënu koo indiwaat loolu tax mu doon jooy naan ala layta shababa yahuudu yawman fa uxbirahu bima faala nashibu ala layta shababa yahuudu yawman fa uxbirahu bima faala nashibu daa jooy naan aka neexoon période jeunesse ñëwaat gannaaw ba màggatee moom nee na mu ñëw benn bis rek nekk ak man ma xamal ko lan la ak màgget def ci man ak lan la màgget bàyyi ci bokk na ci li wane importance su période boobu mooy ni alshabaabu hum atbaau rusul wa xamalatu raayati daawati lislaamia fi kulli zamanin wa makan shabaab yi ñoom ñooy ñi mus a topp yonent yëpp bal ñi jiitu ci yo ci shabaab yi ñan la ñi jiitu ci shabaab yi ñan la ñi jiitu ci shabaab yi ñan la shabaabu gaaw ñi ci jiitu ñan la ah yonent yi alayhi salaatu wasalaam ñi ñëpp ay shabaab lañu yàlla mos a yónni inna sami'na fatan yadhkuru yuqaalu lahu Ibrahim te ñi ci ëpp 40 ans la ñuy am yàlla yónni leen boobu jeune la chab la boo xoolee am nañu amul 40 ans Isa Yaxya yaa Yaxya xudil kitaaba bi quwwa wa aatayna al-hukma sabiyya kon ñëpp ay jeune lañu yonent yëpp ay jeune lañu yàlla mos a yónni yonent màgget yonent jeune rek la mos a yónni boo xoolee ba ci suñu yaram Muhammad sallallahu alayhi wa yëpp moom leen mag te boobu 40 am kon saxaaba yëpp ay jeunes lañu woon ñenn rek la mag ay denn denn lañu mooy ku mel ni Abbas ku mel ni Hamza nga ay bàyyi tëxam lañu ay baayam lañu ay rakk baayam ku mel ni ah, Abu Quhafa di Uthman di bàyyu Abubakar radiyallahu anhu ñi noonu ñooyu la mag woon mais bul loolu moo mag ñëpp moom sallallahu alayhi wa sallam ñëpp moo leen mag boo xoolee ñëpp saxaaba yi bi ñuy dugg ci lislaam ñii ñi ngi am vingt quelque ñii ñi ngi am trente quelque ñii ñi ngi am ay dix quelque la am ñi ci gën a mag mooy ñoom Abu Bakar amoon trente trente cinq ans bi ñuy dugg ci lislaam wala trente six ans wala sept ans xam ni wax nañu yonente mi ngi ko magee trois ans moo Abu Bakar radiyallahu anhu te moo magoon saxaabi moo Abu Bakar radiyallahu anhu ñeneen ñépp gën nañoo suufe gannaaw ko ñooñu ay mag lañu ay trente quelque lañu am trente quatre la am ñeneen ña euh, ñi ci gën a tuuti am ay quinze ans ñi am ay douze ans ñooñu ci boppam ñoo yëpp daaw bi Muaad ibn Jabal gis ngeen ba ko yonent bi di jabal Yémen ay 18 ans xoolal Ammar ñu koy yebal comme ambassadeur ci Médine xam ne jaar dinañ ñëw ci kanam shababun akaru fi taarix incha allah aussi boo xoolee Usaama bi ñu koy jox raaya bi mu jiite armée bi 18 ans Abdullah al Abbas bi yonent di génn àdduna mi ngi am 13 ans gis nga noonu noonu ay xale lañu woon ñoom ñëpp. di yoonu daawa loo tax imam Zuhri doon wax ni laa taxqiru anfusakum li xadaasati asnaanikum bu leen xeeb seen bopp ngir seen at yu néew fa inna Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu kaana idaa nazala bihi al-amru al-mu'dal daa al-futyaana wastashaarahum yabtagi xiddata uquulihim mu ne Umar al-Xattaab mbir bu musaana wàcc ci moom boo xam dafay jafeñ ñu amal ko solution muy problème boo xam ni dafay tëj të mag ñi xalaat nañu ba sonn mënu cee am benn solution day woo xale yi diisoo ñoom nag ngir xool ngir jël seen xel yu ñëw ya ak yu dëgër ya ak seen fit ya ak seen seen ñëw nga xel ya parce que boo xoolee problème yi xew yi ci ëpp tamit jeunes yi ñoo dund ak ñoom ñoo dund ak problème yi problème yu yees la kon dafay soxla euh, expert euh, xel yu yees yu méngoo problème yi ngir mën koo solutionné loolu tax léeg-léeg ni mu daan diisoo mag ñi noonu xale yi moom amul xataab radiallahu anhu kon période bi période bu am solo la wante fi ñuy mujjee mooy jeune bi laata muy mën a taxawee loolu il faut ñu waajal ko mooy waajal ko defal ko eedaat moom jeune bi Euh, waajal gi ñu njëkkanteeg brancher kii bi waajal bi mooy la bëgg a i'daad shabab li hamli risalati islam wa daawati il faut ñu waajal jeune bi waajal boo xam ni ci lay mën a yem yób yónnit leetaru l'islam wala message ak woote ga loolu nag waajal googu nag bala mooy am il faut yi taxaw ci ànd ci mooy al i'daadul imaan yi ñu waajal ko ci wàllu ngëm الإعداد العلمي والشرعي والمهني والمهني هنا خطأ مهني mooy ñu waajal ko ci wàllu xam-xam sharia wante tamit ñu waajal ko ci wàllu ci wàllu métier ñu waajal ko ci wàllu métier ñu waajal ko ci wàllu métier loolu tamit faaw mu am beneen bi tamit al i'dad al amali wa taabudi ñu waajal ko ci wàllu liggéey ak jëf ak wàllu jaamu yàlla beneen bi al i'dad suluki wal ijtimai wal xuluqi ñu waajal ko war wàllu comportement ak wàllu social ak tamit wàllu jikko beneen mooy al i'dad thaqafi ñu waajal ko ci wàllu culture mu am culture générale am culture bu yaatu beneen mooy al i'dad luga al daawi ñu waajal ko ci wàllu daawa tàggat ko ci wàllu woote ak wàllu jottali kon lii faaw mu am ngir jeune bi mën a taxaw ci xamdu risalati l islam wa daawati wa daawati ilay daawati ilayha kon loolu faaw mu euh, faaw mu am euh, jamil kon al idaadul imaani faaw mu am muy waajal ci wàllum ngëm al idaadul ilmi wa sharci wal mihani fii dafa jiw dama al mihani la waaye nag ci wàllu xam-xamu sharia ci wàllu métier mooy xam-xamu jamono il faut ñu waajal ko ci moom jeune wa taabudi ñu waajal ko ci ak tamit waajal ko ci wàllu jaamu gi ak jaamu yàlla al idaadu suluki wal ijtimaai wal xuluqi waajal ko ci wàllu comportement ak wàllu social ni muy mu nit ñi nekkin wu rafet ak tamit wàllum jikko waajal ko ci wàllu saqaafi al idaad saqaafi waajal ko ci wàllu euh, culture am culture générale xam jamono xam tamit li war ci jamono xam lan mooy àtte lislaam ci xew-xewu jamono loolu faaw mu xam mu xam tamit noonu lislaam yi yan plan la ñuy tegal lislaam ngir sa ngir sërxal ko nan lañu taxawee ngir xeex lislaam yan mooy li ñuy jëfandikoo xam tamit yenn xeetu xam-xam yi nga xam ni jamono da laaj ngir mu mën a xam fan lay teg tànkam ci jamono ak fan lay jariñee nan lay jariñee al islaam yi ak lislaam ci xam-xam boobu moo xam dafa nekk médecin moo xam dafa nekk ingénieur ci lu mu a doon moo xam te dafa nekk jàngalekat ci matière bu mun a doon nan lay fexe travers xam-xamam boobu wala métier boobu mu liggéey ci lislaam léegi daal daaw bi waajal ko ci wàllu daawa ci wàllu daawa nga xam ni dafay xam ni moom dafa war a liggéeyal lislaamam comme ni ko ñenn ñi defee liggéeyal seen i diine ak seen i pas-pas ak seen i ngëm-ngëm mu jaral ñu digg seen i dëkk dem ba ci àll ba nekk ak waa àll ba di lekk bokk ak ñoom di lekk la ñuy lekk di sol la ñuy sol. noonu tamit di tëdd fa ñuy tëdd di naan la naan nga xam ni ñu ngi jóge ñi ngi jóge ca dëkk tubaab ya gën a soree sori sori ya gën a nekkoon ci vie bu gën a ligsewu bàyyi vie boobu yépp ñëw ci àll boobu bu àll boobu nga xam ni ñun sax ci ñun léeg-léeg duñu àttan dund boobu ñoom ñu dem ba àttanal ko seen àttan ko ngir jàngale seeni pas-pas ak tamit seeni culture loolu il faut ci boppam ñu waajal ci ki nga xam ni euh, moom mooy achar euh, boo xam ni dafa di ñu mu jariñ mu jariñ daawa bi wala jariñ lislaam euh, beneen bi mooy idaad boobu lii misaal la ci mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam danaan idaad shabaab yi am na ay lii misaal la rek na mu la ci idaad bi yonent doon idaad shabaab yi ngir ñu xam ne risaalatul islam ak ñi woote jëme ci lislaam mooy koroj bi mu àndee abdullah ibn abbas mu war ci ginnaaw yonent ni ko yaa walaam inni uallimuka kalimaat yow xale kon jeune bi ko yonent préparé ci wàllu xam-xam uallimuka wàllu xam-xam beneen ba i'daad ilmi boobu ak beneen ba i'daad euh, al imaan yi uallimuka kalimaat imaan yi ndax yi yëpp kalimaat yi la mu ni ko euh, ak tamit idaad taabudi bi ñu waxoon sàmm wala idaad yi ihfad illaha yaxfadka sàmmal yàlla mu sàmmal la maanaam na nga sàmmante digle yàlla yi yàlla sàmm la ak bàyyi tere yàlla yi yàlla sàmm la ihfad illaha tajidhu tujaha sàmmante digle yàlla yi tere yàlla yi foo jublu euh, fekk fa ndimbalu yàlla ak jàppale yàlla ak taaraanga yàlla isa saalta fasalillah booy laaj na nga laaj yàlla way istaanta fastain billah booy dimbale ko ni nga dimbale koo ci yàlla waalam an al ummata law ijtamaat ala an yanfauka bi cheyin lam yanfauka illa bi cheyin qad katabahu laahu lak da nga xam ne xel yépp buñ daje woon ngir jëriñ la mun ñu laa jëriñ loolu la yàlla dogalal walaw ijtamaau ala an yaduruka lam yaduruka illa bi cheyin qad katabahu llahu alayk bu daje woon ñoom ñëpp ngir lor la mënuñu laa lor lu la yàlla dogaloon ci yow ni ko nag sa xel na dal rufiat al aqlam wa jaffati suhuf xalima yi bindee dogal ya xalima yooyu bind nañ ko ba wéer kii yi ñu bindoon dogal ya daaba dem na ba faar maanaam ba wow koom kon dogal yi yàlla xas na dogal mbir kon na ak sa xol ci yàlla te doyloo yàlla te gëm yàlla bañ a euh, jël lenn nga koy bañ a askane keneen ku dul yàlla kon fii li ngi dugal ci moom euh, mu euh, aj xolam ci yàlla mooy taalluq alqal billah ak tamit bañ a yaakaare njariñ yi bañ a ko askanee ci nit ñi wala nga koy lor nga koy askanee ci nit ñi bal nga xam ni yàlla mooy jariñ yàlla mooy lore bu ko defee nga noppalu sa xol fiix kon liñ tàggal la bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon tàggatee jeune bi mooy xeet la ti xeet idaar yi idaar yeneen yi bari na mooy responsabiliser ni mu leen responsabiliser woon mooy jeune saxaaba kii mu def mu nekk ambassadeur mooy Ammar ibn Yasir mu def kee tamit nekk ambassadeur nekk daaya mooy Muaadun Jabal ci yeneen noonu tamit kii mu def ko général Osama ñeneen tamit ñeneen ñeneen ñeneen muy responsabiliser jeunes yi loolu tamit beneen formation la bu leen doon yonent doon defal beneen idaar defal ba nga xam ni général bi yoroon monsieur mujjee euh, tabb bi muy génn àdduna mooy Usaama ibn Zayd mooy ab jeune boo xam ni 18 ans rek la amoon ab jeune kon loolu dañ wane benn signal la bu fort buy wane ni avenir l'islam ci loxo jeunes yi la nekk kon 18 euh, ans yi ñun ana borom 18 ans yi fii euh, ana 18 ans yi ku nekk léegi na laaj yow lan nga defal l'islam xoolal Usaama ba mu ciy toll lan la defal l'islam xoolal diw diw diw loolu danañ ko bàyyi rek al ustaz daal jaaji insha allah dana ci ñëw euh, kon fi ñu mujjee ak yéen rek wa anna hada sirati mustaqiman fattabiuhu wala tattabiu subula fatafarraqa bikum an sabili dalikum wasaakum bi laallakum tattaqun hada sallallahu wasallam ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala kulli dafa waroon a am munaqasha mais waxtu bi mooy njëkk loolu tax incha allah damay bàyyi ak Oustaz Dia yi mu ñëw li ngeen ma gën a gën a munaqasha ak man ak asile tànq ko ngeen tànq ko